ñëw indiwul moyen tout boo xoolee maire yi fi campagne yëpp c' est le seul maire boo xam il n' a pas mis cinq cent mille dans sa campagne électorale ceeg moom nag ba mu gañee rek soo waay mel ni ku ñu yenn àdduna ña mu àndaloon ñëpp mu sànni leen teg fële la mu njëkk def mooy mu jël ay jege ñaarem programme bi mu tëgg sax ñun ñoo ko tëggoon ñu ñi mu jël ñu fala fële jël ay dinam wéer si ginnaawam commencé liggéey mais ñun dañoo xool intérêt coalition bi moo tax yu bëri ñu bàyyi ko Mamour Djité nag jël yoonu boppam def lu ko neex bokk na ci li mu def ba muy doog a ñëw dañ ne ko dañoo am benn domaine foncier bu nekk fii congaan ñu ko wax congaan mu nekk plus d'un hectare ñu ne ko lii si domaine national la bokk ñu ne ko yow yaa taxaw fii mairie nga ne Cees waaye dañoo def ay réaffectation suuf nga yëkkat sa loxo nga ne Cees waay képp koo xamante ne amoon nga naqar si biir suuf maa ngi ñëw te moo ñëwee naa ko réglé. ñu ne ko yow congaan fii les domaine domaine national la balaa ñu fal lotissement mais dafa war a taxaw mu gëm ay bëtam ba ñu xëy benn bis ñu dégg ñu ne lotissé lañu foofu ba jox ay nit. ba ñu ba ñuy wax nag moom jox nañ ko si benn wala jox nañu maire Aliou Sow benn moom en tout cas moo ñu wax en bureau municipal ñu ne ko yow ñii li waxuñu la ko woon. donc foofu ñu maanaam population Thiès Ouest jàpp na leen ñàkk ngeen foofu suuf bu bëree bëri. mu lancé benn marché ne day def day def audit foncier parce que moom moo ko digoon Thiès waaye 12 millions ñu gis ñaari at ba léegi rapport bi génnul ñun bureau municipal gisuñu ko kenn gisu ko benn conseil gisu ko sax ñun est-ce que cabinet bi mu ko jox est-ce que cabinet am na compétence su def audit foncier bi parce que mënoo jël cabinet nga jox ko 12 millions pendant deux ans benn benn benn rapport génnul ñu ne nag léegi yéen ñii yéen ñi nekk adjoint au maire ko fi kenn da ngeen compte Mamadou Djil que ñun li ñu wax nii est-ce que am na subjectivité wala lii c'est des raisons beneen question bi ñu wax mooy lancement marché yi da ngay xëy bureau municipal dañu ne la lancé nañu marché tey si conseil municipal bi passé wala ba ñuy vote du budget si la benn action jóg ne ñun de marché yi ñuy lancé ñu si dara mu ne ñu nekk service des marché lii la ñu marché yi ñun si la ñuy doog yëg ñun. conseil ak adjoint yi maire si la ñu doog a yëg ni lancé na marché euh, oignon ak pomme de terre valeur de onze millions si budget bi passé onze millions dañu ne waa lii foofu fan la dugg ñu ne waa yow njëgën adjoint maire njëgën yëg nga ko mën a yëguma ñu ne Gilbert Conseil yëg nga mën a yëguma ñu ne Olayli yëg nga mën a yëguma ñu ne Amadou Dia premier adjoint yëg nga mën a man yëguma xaw ma fu soble nekk ba ko waxee démb nag dégg nañu am na soble bu ñu commencé dugal ci maire ba nii nii nii nii dégg nañ ko mais nag jàpp nañu onze millions ñe onze millions soble ak computer xajul si mairie xaw ma na fu mu ko jëlee loolu loolu ab incha allah dina ci tontu parce que am na yoo xamante ni ñu koy dox te xam naa loolu le le maire Ousseynou du si ñëw. budget bi passé am na am na am na am na euh, ni ñu koy waxee report cent millions cent et quelques millions yoo xamante ni dañ ko waroon financer si deux mille vingt si incompétence parce que nee na day day entamer ay travaux Barthélemy ñu ne ko ah, loolu rafet la. mais amul benn conseil tey conseil yi voté budget bi yëpp amul benn conseil bu la a wax maquette bi nii la demee lañ naan def barti bu la barti mi xamuñu ko mais ñun du ñu nekk ay conseil ñu def ay mbir te ko ñu ne ko sa budget bi jaaru yoon mu mer dégg ngeen beneen mbir mooy mbiru mburtaat ñu jox ko si ay terrain muy ni ko bureau municipal mu ne man jox nañ ma cinquante terrain nii laa koy doxale nii laa koy doxalee mu ñëwaat beneen bureau ba ne jox nañ ma soixante cinq d' dama koy féetal sama cabinet cabinet boo xam ne ñeenti nit ñoo ci nekk li ci des mu ne dama koy jox conseil li ci des mu ne dama koy jox agent yi may profité nag di félicité agent agent agent maire Thiès Ouest parce que ay jàmbaar lañu ay liggéeykat lañu tey ñun conseil bu jëloon terrain yëpp dox agent yi ñu ànd ak moom parce que agent yi mérité nañ ko maire boo demee agent yi ils sont crispés parce que moo jiite maanaam euh, euh, euh, poids bu mu teg seen kaw ak liggéey bi ñuy liggéey da nga yërëm sax. ma jow ma man en tant que adjoint au maire te lii wax lii ma wax nii wax naa ko bureau municipal a ah, wax naa ko conseil municipal ma ne ko monsieur le maire yow yaa waxoon transparence yow yaa waxoon mbiru suuf dafa am Thiès di ko réglé mais yow nan nga mën a jëlee 14 terrain nga ne da nga koy def sa cabinet boo xam ne ñeenti nit ñoo si nekk loolu yenn maanaam mu ne ma waaw ñooñu dañu may jëriñ loo xamante ay conseil xam ah, duñu ma ko jëriñ wala dañu may jëriñ loo xamante ay conseil dañu ma ko yàqal ma ne ko ah bon ne waaw. ma ne ko mais c'est xam ne kii maa ngi moom mënatuñoo composé parce yow sa adjoint bu ñëwee ne la lii dinañ ñu attaqué wax ma sax dinañ ñu attaqué dañ dinañ ñu bokkoon coalition mu ne ma en tout cas loolu laay def moo tax tey nga gis ay conseillers nan ko publier list ñi nga xam ne ñoo am terrain nangoo ko publier transparence weesuwul même procès verbal dañ siy njuuñ jaaj procès verbal parce que yow bu la ay adjoint maire mën naa leen woto si bi adjoint maire demandé ne la le maire damaa soxla procès verbal conseil municipal nga ne du ma la ko jox ba léegi ba léegi amul benn conseil boo xamante ni am na procès verbal de réunion loolu ñu yaakaar transparence la ñu ne kenn du ko wax ñu dañoo contre maire xool leen bu baax li ñu leen di wax ñëpp xam nañ décembre budget day jeex on est en de budget ñu xëy benn mercredi ñu commencé woo conseil ne leen conseil préparé wu leen dañu dem formation ñu naa ah, formation ne lu baax la ñu de wax dëgg yàlla un conseiller doit se ñu ne waa maître la ñu leen woo vendeur ngeen préparé wu pour wane leen méthode méthode yi Mamadou Djidé di utiliser maanaam ñàkk respecté bu mu respecté conseil yow boo amee pendant pendant toute année est que mënoo def planification pour say conseil mais nga xëy mercredi ku nekk ne eh monsieur le maire Abdou Badiéguène adjoint maire nga ne ko préparé wu mercredi yi vendeur la ñu île du Saloum ñu ne ko waa île du Saloum lu ñu wut île du Saloum te hôtel nekk fii biir Thiès ñu ne dañuy def formation foofu ñu ne la ñun mënuñu nekk en fin de ñëpp naan budget bi budget bi nga jël 17 millions Abdoulaye Ndiéguène ne keroog nee na mu ne nga jël 17 millions def ko si faire formation boo xam ne ñaari fan la def ñaari fan ñu ne ñun Pastef en tout ñun li ñu waxoon ñun ñu jël suñu responsabilité ñu ne bu fa benn conseil Pastef teew te ñu ñu déggoonoon suñu jaboot kenn demul ñu ngi leen si félicité de passage. ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax parce que li xew ci mairie bi tey mooy euh, commune de Thiès Ouest. muy mairie bi nga xam ne ni euh, docteur jiite fa la nekk ndax man am na benn tur boo xam ne moom dootuma ko woowe ndax ku la ko matee nga koy woowee te jàpp naa ne moom matewuma ko te yéenewuma ko tamit sama waa askan mooy fi ma nekk muy docteur jiite ndax euh, lii ñu fi wax ba ma koy njëkk di dénoncé kenn gëmuma woon sax parce que dañu naan mu nekk parce que doo ko ko foogee bu ñëwee sedd ba wax danga naan moo gën a jub ci àdduna loolu ngay foog sedd bu waxee danga naan ku gën a jub jiite amul mais man rakin tak ci bureau municipal bi dama ko détecté ndax euh, dañu dawal ba ci kanam ma xam ne waaju jubul waaju jubul dafa am fuñ koy teg c'est parce que dañuy neex rek ñu naan docteur jiite jubul déedéet ñun ci ay këyit la ñuy sukkandiku dañuy wax dara tënk ko saawaay bu génnee wala mu ñëw conseil municipal day ñëw joxe yeneen chiffre yoo xam ne ni euh, du loolu ñun la waxante woon suñu biir loolu gor du ko def loolu gor du ko def man damay toog fi ma toog damay rus yàgg na su ñëwee wax ak mbooloo mi lépp lu mu wax man su ma paree dama koy démentir ne du dëgg parce que ñu nekk ñu fii di coacher ay njuuj njaaj ndax population bi lañ fi toogal te population bi dañ leen a war a taxawu ndax loolu mooy sunu rôle nekkuñu fi di defandir kenn ku nekk ci njub ñu ànd ak yow ku nekkul ci njub ñun ñu taxaw fële xeex la jiite liggéey nañu ba agsi fii du benn yoon bi nga xam na ni Euh, ñoo ngi koy euh, votel euh, ki budget bu la musat tegal compte de budget bi compte de gestion bi te loolu nit balaa ngay ñëw naan nañ la nañ la nañ la votel dara day fekk nga won nit ñi ñu am ci lu ñu sukkandiku xool li nga waxoon ak lañ la joxoon ndax defee nga ko noonu wala defee woo ko noonu jox leen ñu xam mais boo ko ko laajee day bañ comme niñ koy laajee PV bi def nañu plusieurs conseils PV bi nanguwuñu ko jox amul benn bum ci jox ñun suñuy wax a ngi fa suñuy jëf a ngi fa lépp a ngi fa waaye xamuñu rapport bi lan la ciy bind ba tey bind nañu préfet amuñu ci tont def nañu lu nekk jiite bañ jiite lii liggéey ci mairie bi tey mënu la wax topp nañ ko ba sonn pour wax ñu nañu wax ñan ñooy liggéey ci mairie bi personnel bi. koy wax nit ñi dañ doon def ay doute ñu bari saa bu ma ñëwee rëq ci taabal bi bu jugee gars votel ko mu am majorité ma ne ko du ma tàyyi de kam ko xam naa ne ci dëgg laa nekk du ma ko bàyyi ba mukk te xam naa ne dinaa am ndam ci yow te tey fa tey yàlla defal nañu ndam ndax ñii toog yëpp ay conseillers ñoo ngi nii ba ñu demee ba teg ay seeni gët ci jiite li muy def ñoom ñëpp ñoo jug te fii. bu doon kenn rek ñu ne kooku moo am ak moom problème kooku moo am ak moom problème personnel fii instance yu si toog yépp parti yi ay parti yi nga xam ne ni parti politique kenn bokkut ak sa moroom ñun ñëpp ñoo ngi toog fii wax bi benn la kon nu ñuy àndee di ko xeex moom moo war a xoolaat boppam te ki muy àndal mooy kuy topp ci ginnaawam di ko dunguru mu di la jox terrain wala mu di la yokkal ceeb wala muy jël xaalis di la ko jox di la may bon gasoil ñun nag dañoo privé lépp man depuis ma toog ci mairie bi ba léegi jiite sama caabi bureau nangu ma koo jox kon benn ki yor communication am la jël euh, caabi bi daal ko koy jox mu toog foofu noonu mais topp ko topp ko tey bu ñu ne bu ma ko waxee problème personnel bi dama bëgg population bi xam moom ay nitam ak waa partem la jël privilégié leen teg leen waa PUR nag ndax lu muy am ñoom la koy àndal di def. Amadou Gilbert Sam militant de l'APR bokk coalition Benno Bokk Yaakaar di bàyyi falu président Macky. faluñu ko. liste Yewwi la bokkoon. population bi tànn ko. tey li ci solo. mooy population bi xam nañ ne ñañ tànnoon parce que ñoom ja ñoo leen convaincre waa Pastef ñoo leen convaincre yeneen parti alliés ñoo leen convaincre mais xam nañ ne ñoom ñoo juum ci tête de liste parce que tey jii Mamadou Djité bi muy bi muy ñëw si mairie bi dafa ñëw du ma personnaliser mais tey ku xool parce que nit ki soo ko dénkee dara nga gis ay ŋaamam changé te population bi mën ñoo am benn changement ay la yéen nit ñi dañuy taxaw seetlu kii li muy fortaatu ci population bi la ko jox wala ci boppam la ko jox tey jii nag ñamu doon àndal nga xamante ni yàlla daf leen a teral ñu ñu jàng am xëy wala ñu nekk ci seen commerce di liggéey teel am teel am ay kër teel a ami soxna moom rêve boobu la mottali ko ci suñu poste mairie bi tey jii li ma gën a metti mooy par rapport ak bureau bi te metti population bi aussi parce que bureau municipal bi nga xamante ni moom moo fi nekkoon population bi dañ si doon gis seen bopp parce que on avait des adjoints yoo xamante ni dañ daan dem si population bi di waxtaane population di xam lan la population bii teewoo ñu am ay conseils yoo xamante ni ñu ngi à la base di xool lan la population bii teewoo nekkate ñun moment bi ñuy def loolu dañ doon déranger le maire parce que du mën a def ay njublangam moom ak si siboorukat yi kay déglu mais ce qui est très mooy ki nga xamante ni moo moo ñëw teew si renouvellement boobu loolu mu doon wax naan dañuy teg bureau boo xamante ni day am parité le contrôleur de légalité le sous-préfet parce que maire su tegee urne bi nit ñi voté ñu am 76 conseillers am 68 présents am 8 euh, procurations mais nan la ñu mën a wàññee ay xob ñu ëpp conseillers yi li ëpp si mbooloo mi dañoo génn wàcc ñu fa kuram préfet di di nangoo teew si loolu ba ay vote di jàll kon nag population bi ñu ngi leen di di alerter aussi le préfet di département di alerte gouverneur di alerte euh, le ministre Modou Diagne Fada mais aussi di alerte le ministre de l'intérieur di leen alerte commune bu Thiès Ouest amul bureau municipal commune bu Thiès Ouest amul bureau municipal on, on, on, on lance un appel à l'État du Sénégal à ce que la commune de Thiès-Ouest mu yabal fa Cour des comptes ak UGE. Euh, man maa ngi tudd Abdou Ba Ndiéguène di coordinateur départemental PM parti de l'espoir et de la modernité yaakaaru réew mi bu Habib Sy doon trois quatrième adjoint au maire. coalition bi ko porté woon ñun ak moom ñoo bokkoon coalition bi ànd def campagne amoon un programme bien défini bu ñu présenté woon population Thiès-Ouest ñu porté ko yàlla def loolu jàll. mais ni ñi nee nañ dañoo def erreur defuñu erreur problème choix la te nit buy ñëw mënoo xam ni nekk si biir nit ki kon ñun on a fait la ñu waroon a def rek à un moment opportun bi mu ñëwee li ñu constaté que Mamadou Djité bi mu ñëwee dafa ñëw acte mu njëkk a teg ay acte politique la teg Mamadou jiite dafa ñëw pour verrouiller le système jël entourage waa PUR nommé leen chef de cabinet assistant Euh, euh, chargé de protocole et verrouiller le système ba nga xam ni waa PUR ñoo ko wër si de ci dépense yi ñuy wax li ñuy côté gestion bi ñuy reproché Mamadou Djité Mamadou jiite benn programme rek la am mënul taxaw fenn ne collaborateurs yi mu amoon comme ay adjoint au maire ak conseil yu digne yi yu am personnalité yi kenn dafa dugg bureau pour ay besoin Mamadou Djité dem na ba carburant bi nga xam ne dotation la pour les adjoints au maire mu téye ko pendant six mois